moo ko maa ngi leen di jox dafay ñëw bu ngeen waxtaan ak euh, askan loolu mooy waxtaan ak sa gox ndax yàlla def na euh, jafe-jafe yi nekk ci réew mi bari na te ñoo am na lu leen yàlla dénk ay ndomba tànk yi yàlla dénk muy moom muy ministre bi. te yi nga ne moom la askan bi soxla lu mel ni waa Ndiarème wala waa Kër Cheikh seen e doom ci seen dara suñ ko xamul du ko mën a saafara loolu moo tax tey mu jóg ne day wër ci mbok yi waxtaan ak ñoom nit sàmmante ak ñoom mais tamit recueillir ay information ci ñoom xam waaye li am solo mooy soo taxaw rek foo tax noo ko fa loo wax noo nga ca loo bàyyi bay nañ ko yal na yeggal sa mbëbët yeggal def nañ ko bëggee loolu rafet na trop soo góorgóorlu lépp lépp ak faal li nga wax dafa am solo lool ndax xale yaa ngi fi de xale yaa ngi ci koñ bi te liggéeyuñu defuñu dara bari na fi nag xanaa kay loolu da nga ciy dawaltal sa bët ak njaag ñii nga àndal nga xam ne ñoom xam nañ xale yi nga xam ne liggéeyuñu ñu signalé ko ñu la ko loo ci mën nga def bu dee xale yi commerce su fekkee mën nga leen di jàppale ci wàllu commerce nga def loolu bu dee ñi nga xam ne danooy jàng su seenam jàng xaw a tag soo leen ci mën a jàppale nga def loolu bu dee ñi bëgg métier ak ci centre métier yaa ngi koo ci mën a dugal foofu nga dugal ko lii daal ay wax dëgg yàlla ayonte bi moom mooy wax bi ci liggéey bu rafet yàlla si tool waaw boobu ñu sant yàlla maa ngi doon sonn ci wax yi tuuti tuuti sa dafa yàgg toog si ñu dégg képp loo xam ne la nga koy wax na fekk nga man ko waaye am ci xalaat ba ba man ko def waaw di wax fa doo ko def moom vraiment ma sonn nañ ma demoon politique pare naa ci man kenn doo nga wooti mën nango dem fenn waaw du caagi sax damaa am ci ma wér déedéet dama sonn ci nax yi képp ñu ne rek koñ bi te bëgg liggéey koñ bi da ngay ànd koñ bi ci def li nga ca mën te muy dëgg nag waan di waxtu sànni rek boo boo paree sànni leen fële loolu mu dinañ cee sonn saa bu campagne yi kuñ fu ne la ñuy nekk la ñuy dugg waaw wax wax bëgg a dee ci duñ ci def dara xale yi wax na dëgg ñu fi liggéey bariwul bari waaw te ginnaaw yàlla ñun ñoo loonu yaakaar kër goo dem am na xale bu fa nekk d'accord sax am xëy na ñàkk mën naa am ñàkk am diplôme ndax ko amul diplôme du neex a jàppale comme nit doo ko mën a jàppale ndax nit da war a am métier war a am am njàng tool la mën a dimbale ba ko am benn njàng ba war a am benn métier kenn mënu laa dimbale yàlla ma yàlla baal kon na xale yi aussi nañ góorgóorlu jàng métier jàng aussi seen njàng topp topp loolu mooy dëgg xale bu jàng de topp tam njàngam ba am ci ay diplôme bu dee jàng métier na métier mokk te mañ ko yàkkamti ñaar yi su amee des na mën a jàppale maanaam su amee nag yéen du nga ko mën a jàppale waxtaan wax dëgg ci la bokk lii lu am solo la ñu ngi ñaan yàlla lii ngeen di mébét yàlla na ci yàlla àggale so euh, yéesu yéesootul toog ci car bi ko gar kon yéen ngeen ne ci gox bi di yéemu ci ñun yow mooy daam jóg yéen lan te ngeen ànd di liggéey ñun yéen lan am suñu sañoon ngeen am ndam ndam lu ngeen fi bëgg yàlla na yàlla jox leen daan ci ànd ak yéen. ndax dëgg la ministre Sénégal di ministre dëkk bi yow it ngay directeur boo xam ne bii Sénégal yëpp nga koo coiffé. doon it directeur boo xam ne yaa ngi dëkk ci dëkk bi. waaye nag di doon it nag doomu Kër Seex. kon waa Kër Seex war nañoo ànd bu baax. jàppale la. Oh. waaw parce que li tax jotul muy gudd mooy donc euh, am na benn paa bu wax fee sànq nit ñi woote nañ dajaloo wax fi ay nit ba pare demaat yooyu yëpp plusieurs fois te lu ci bari du saafara moo tax ma leen wax jeeg yooyu yëpp guddal parce que li waral ñu teew tey mooy yéen bokk ngeen ci ñi nga xamante ni xam nañ seen ay problème bokk ngeen ci ñi nga xamante ni xam nañ seen ay problème parce que bu ku gis marché bi rek xam ni problème am na jarul ngay laaj kenn même bu doonee concept waxtaan ak sa gox lañ la moo tax ñu ni ñun nag am na ci loo xamante ni nii peut-être suñu ay niveau ak suñu moyen mooy ñu ñu song ko parce que buñ ko waxee ni dañ koy song tamit lu tax mu sotti waaw waaye tey boo gisee ñu ñëw dañoo jàpp ni dañoo jëm ci tabaski waaw te tabaski aussi dafa nekk feet bu am solo ci réew mi yéen ngeen nekk ay jaaykat nekk ci marché bi donc programme mel noonu bu ñëwee ñu ni war nañu leen a mën a jàppale war nañu leen a mën a taxaw moo tax tey ma ni naa ñëw ginnaaw ba ma laajee Ibra Niang ba pare ne ko léegi dañuy génne benn montant même bu bariwul ñu jël ko teg ko ci loxo femmes yi julli gi mi ngi ñëw ñu mën cee jënd ay soble ay pomme de terre def ci seen ay table jaay. def sareet ba mu fees ay sareet di ko wàcce. commencé ko fii ba fële wër marché bi. ku ne ma jox la taabal ku ne ma ñii ma jox leen di satala ñii ma jox leen ay masak man xam naa ko bu baax sama place bi turu waa marché kàdd gi di leen sant di leen gërëm euh, di di di rafetlu waxtaan waa initiative bi président Modou Fall jël di directeur de l'emploi euh, ñoo ngi nuyu waa marché bi yëpp nag euh, di ko nuyu moom aussi di ko sargal di ko jaajëfal parce que c'est pas la première fois mu def lu mel nii kon déjà lii bu ko defaatee ñun lay gën a jàppale ñun lay gën a dooleel dooleel ñu nag mu ngi tàmbalee ci nii parce que kenn ku nekk xam na comme ni mu ko waxee nii jafe-jafe yi suñu marché bi dund ndax bu man man de nee naa kuy raam di la bokk su amee fu mu jëm du la fa bàyyi te Modou Fall noonu la mel noonu la loolu la loolu lañ xam si moom waa jamono ju metti ji ku ne waaj loo tabaskee nga waaxu dawal sa oto dikk fekkun fi woowu ñu la laaj ñu la da yaa am sa yéene ak sa jëf ak sa jikko ju baax andil ñu xaalis bu yeex tal nii nga nu ko leen ak yal na sa xol bi sedd mel ni perkal Seydina Muhammad Pape Fall gërëm naa la sant naa la nag yóbbu ci ak yekk rek ndax ñun ñëpp a sonnoon kenn amu ci doomu sable te sa kër waxuma la kilo pomme de terre kon papa bu dikkee jox nañu. li may sant yàlla mooy ah ci lii papa def mais lii mu def bu sera première fois nag mu def ko waxal yàlla waxal dëgg waxal ngor xam ne lii bu sera première fois mu def ko. sama rappel 2016 wala 2014 defar na ay taabal. def defar na fi ay ay satala ay ay indigo ko sama la Daouda Mbaye jox ko maire yi boobu man maa ngi fële boobu dugg ma ci commencé doon liggéey itam ci xaalisam pour ñu réfectionner douche bi defar ko def na ko fi directeur euh, ministre Dame Diop def na ko fi kon boo ñëwaatee def lii dañ lay ñaanal li ngay def gën a yokk nga gën koo man ba fi li nga yéen ak li nga bëgg suñu borom dafa lakk. waxtaan sa gox nag dara waralu ko lu dul Jurbel euh, bi ñu nekk ak Kër Cheikh bi ñu nekk am na yu fi nekk am na ay jafe-jafe yu soit ci jeunes yi la soit ci mag ñi la. donc te nit bu fekkee ne dafa am yéene pour jàppale ay nit bu xamul seen saako seen seen jàngoro du ko mën faj. loolu rafet na te gox bi. ku ne xam na ne waxuñu ne waxuñu kër seex waaye njaareem. njaareem yaakaar naa li fi yëngatu yëpp ñun ñëpp xam nañu ko. njaareem dana doxul. njaareem dañu naan gros village la. njaareem jeunes yi jàng nañ yaa ngi nii ñi ñëpp a ngi seen diplôme mais mënuñoo am fu ñu dugg. ñenn ñi ngi bëgg a liggéey yor seen petite entreprise mais amuñu ku jàppale te yooyu ku ne xam na ni ku ko amul du dem bu ñu fa amee lu mel ni ab ministre am fa ay lu mel ni ay directeur ca kër seex ba léegi jeunes yi mënuñoo liggéey war na noo xool ñoom seen bopp affaire bi loolu la ndax man moom wax dëgg fa yàlla man noonu lay waxee chaque jour comme ministre ay directeur ca say ndaw ba léegi dëkk ci taxawaalu ñi nga xamante ne bi yor nañ seen petite entreprise sax mënuñoo am ay financement kon loolu yaa problème duñu jeunes yi nag ndax jeunes def nañ li war a def dem nañ jàngi ñëw na ñu ngi war toog di xaar ñoom ñi nga xamante ne bi ñoom la yaa teg ci kaw ñoo war a gestuwaat dëpp waxtaan ak ñoom xool li ñu bëgg ñu defal leen ko te suñu bëgg-bëgg yëpp mooy tekki ngi jàppale suñuy waajur te ñoom ñii yàlla man na koo jaarale ci ñoom yàlla bu la joxee daf laa séddale loo yow mi mu jox nga séddale nag jarabul ci toog ndax bës na la ko laajaat waaw loolu daal la ma loolu il nekk loo xamante ne bii moom il faut ko daanaka gars yi yëpp ñun ñoo ñoo nekkandoo ay xale ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk di toog fii chaque jour ñi ngi ak seen diplôme mais mënuñoo dem fenn ñun ñi ñi ngi fi ak suñuy petite entreprise yor suñu moyen transfert d'argent nekk ci waaye la yàlla xam doy na bu nga ñu jàppale daal moom dina baax te yaakaar naa mën ngeen ko yaakaar naa du duñ romb kenn ñun ndax buñ bàyyi suñu gox dem di jàppale am seer jóg wala am mataar faax déedéet duñ ko def ñoom ñii ñu jàppale ñu buñ ci woote ñi ngi ci ñu ngi ci parce que dañ leen war a jàppale waaw loolu rek la jërëjëf concept bi loolu la rek de parce que liñ ci jublu mooy waxtaan bi parce que des fois nit dana am ci lu muy wax loo xamante ni dafa am lu dul comprendre waaw gis nga peut-être boo xoolee ma wax loolu li tax ma wax loolu mooy xam nga ñu bari jàng nañ ba am seeni diplôme c'est important pour après hmm? man directeur de l'emploi la c'est important pour après nit ki bu jàngee ba ami diplôme toog këram kenn du ko dimbali loolu moom ma wax la ko ci teel waaw lenn rek la mën a am def mooy fu ne mu war fa déposer CV mais état du ko mës a dimbali man naa mën na faa toog ba mag fa te duñ ko dimbali ndax lan ndax yoon moom war a jaar moom la jaarut peut-être ndax xamu ko moo tax ñuy waxtaan pour nit ñi xam ndax boo jàngee ba génn boo yoree diplôme da ngay dem ci direction de l'emploi ngi inscrire boo inscrire ñu jox la certificat d'inscription man mi directeur ma xam ni diw mii bind na ba ma mënee saafara mbiram ma saafara waaye ki defut loolu bu doonay waxtaan wax dëgg yàlla xam nga sànq dafa wax bu am solo da nit bu ngeen wax ne wax dëgg duñu leen mas a jàppale parce que yoon wu ñu war a tegu tegu ci loolu mooy bi. te xamul sa soxla ko mën a. ma s'il hmm? yoon wu war a tegu tegu ci ndax ñi ñi ñi wut liggéey bari nañ mais ñiñ ci considéré comme demandeur d'emploi bari wuñu ndax état la yow boo amee sa doom mu judd ba sa doom juddoo nga téye ko si kër déclaré woo ko doom kayitu judd hmm? ah, hmm? yow tey magum jëm boo waree wuti carte demoo fa ñu wutee carte d'identité doo am carte d'identité boo feebaree demoo hôpital duñ la faj boo soxlaa liggéey da ngay dem fa ñuy fa nga xamante ni fa la ñu bindoo nga bindu fa boo fa binduwul nag toog njaareem croiser les bras nan awma liggéey ah en tout cas. mel ni ñu mën a xam population Sénégal te nit ñi recensé wuñu leen wala nit ñi dem demuñu wut kayitu judd ñu xam ñaata nit ñoo fi am kayitu judd kii jàng ba génn day dem bindu direction de l'emploi. un DG bu wàcc ci terrain. Hmm. di rencontrer. population bi c'est une première maa ngi koy doog gis peut-être nag mën naa am ñi ma fi jiitu wala ñu mag ma xëy na man na noo am information boobu mais man ci li ma xam maa ngi koy doog a gis kon boo amee c'est à saluer wax dëgg fa yàlla mais suñ premier première chose man li ma li ma constaté quoi en tant que man nag li ça m'engage quoi boo gisee ñu bëri am problème mu insertion mooy méthode bi ñuy jàngee à l'université hmm. dafa doon méthode boo xam ne bon Euh, dafa doon méthode euh, comment dirais-je euh, formation mhm. dafa xaw a général quoi mhm. doo professionnel mhm. te nit ki boo amul professionnalisme pour ñu insérer la fenn du yomb ndax boo demandé woon sa CV ñu ne la lan la nga man nga ne jàng naa ba am licence cela veut rien cela veut rien dire kon jàpp naa ne premièrement pour ñu mën a jàppale jeunes yi il faut ñu xool ñi nga xam ne amuñu formation ñu jim na jàppale si formation d'abord ndax nit kii kat bala ñu la mën a jàppale il faut nga am qualification. nit ki nit ki ànd ak moom dafay xiir ci mu gis lu mbooloo mi ndax daam nitu mbooloo la war a doon mbooloo mee ko parce que mbooloo mee ko teg dafay war a nekk pour mbooloo mi ko soxla gis ko. waaye am na ñoo xam ne ñi bu fekkente ne ñu ko dañ koy tëj dimbalewuñ ko ñi koy tëj dafa yar du gisee nit ñi moom dimbalewuñ ko nit ki buy wut wut intérêt baax na waaye nit ki dañ koy dimbale aussi si intérêt moom parce que yaa ngi dox ci lu jëmale koñ bi quartier bi kanam waxuma la quartier bi sax waaye dëkk bi kanam maa ngi koy dégg maa ngi lay gis maa ngi lay suivre ba démb bi may def sama don régional du champ bi yónnee nga sa contribution daam aussi contribuer na ci don don de sang bi parce que lim ci contribuer musuma gis kenn benn responsable bu contribuer ci ci ci ci dix ans yi ma dafa ko à à tête de l'association ans yi ma fa gisee ko gisaguma contribution bi noonu ndax yónnee ma trois cent t-shirt dama joxe ñi joxe maye cent ba joxe ñi amul ñi fi nekk waa koñ bi yëpp. ànd ak Pape euh, jàpp naa ne yéen ñi nekk fii yëpp kenn ku ne xam ngeen kan mooy Pape Fall. maa la lañ dëkk. Euh, peut-être am na ñu xam ni doon nañ fi yëngatu ci politique. ba peut-être yàlla te jox ñu ndoom ba tànk. donc euh, jox ko ministre bi aussi ministre Dame Diop. jox ma ko man mii muy directeur de l'emploi. te comme ci koñ bi lañ dëkk te yaakaar nañ ni ku am doole rek ñi nga dëkkal ñoo la may doole. kon yaakaar nañ ni jaanu na maanaa ñu wër remercier leen parce que tey ñu bari ci yéen bu ñu jàppalewul woon mën nañu loolu da am. kon donc bu ñu demee ba àgg foofu parce que jàppale ngeen ñu ci donc remercier leen ci loolu beneen bi mooy tamit xam nañ ni jamono dafa naqari ndax dañoo jóg dañoo toog ci période boo xamante ne nii feebar daf fee nekk muy vir coronavirus bi te feebar boobu ba léegi fi ñuy wax ak yéen jógu fi ndax bis bu set ñu dégg ñu ni am na ñeneen ñu bees ñu feebar te kon li ñu war mooy moytu moo tax ñu ni dañuy wër waxtaan ak suñu waa gox pour wax leen ne leen nañ gën a moytu ndax feebar mi ngi fi muy benn beneen bi aussi mooy xam nañ ni jamono naqari nañ te ñu ci bari toog nañ ay fan liggéeyuñu te yaakaar nañ ni kii yore këram di dimbali njabootam bu toogee ay fan liggéeyut mbir mi day day metti ci moom. beneen bi aussi mooy ñu topp ñu toog période jëm ci tabaski tabaski bi ñu jëm kenn ku ne xam na ni aussi yombul. waaw donc yombul ndax jamono neexul. moo taxoon ñu ni nañu war waxtaan ak nit ñi euh, ci jafe-jafe àdduna waxtaan leen ci li ñuy dund mais aussi. mu néew ko bari liñ leen mën a jàppale ñu teg ko ci seen loxo jàppale leen ko ñu xam ni yéenay jàppale la pour tàmbali donc pour wax leen ni leen daal fàttewuñ leen ñii ñëpp suñu ay waajur lañ. raam di la bokk ba may oto ndax nit gi nga nu defal ak safoo gi nga defal ak dimbale gi nga nu defal yow li nga wax lépp daal dafa yaaxle nanu jaaxal njaboot bi ndax saa yu ma xëyee damaa xaar ci muy leen dox rek ñu daw na ci diggante bi rek mën a mbokk koog suñu njaboot ngir yërëm ñu nag ah. tenir ñu jàppale nu ñoo ah. ngi lay ñaanal ci yàlla ak yónnant bi ah. ak sa barke bàyyi sa liggéey ndey barke bàyyi ndaam Saliou Fall ak barke suñu ndaam Saliou kon du yëg la yàlla yokk yàlla nañ toog ba ngay président ndax lépp ko dara bàyyi kenn man man man maa ko ñëw. yaa ngi ci jaamu ku koy jaamu takkal sa masque. muy am na yar am na teggin. maa lay ñaanal gudd fan ak wér faal. gudd wax dëgg yàlla Médina Sora bi moom zéro faute ñëpp benn lañ ànd ak Pape rek te yàlla tax. parce que ci dëgg lañ ko ci dëgg lañu woo ñu ànd ak moom ci dëgg rek. nii mu nekk te boo wootee muy si la dañ faa toog yàgg bàyyi kër kon kooku normal na de temps en temps même bu la mën a jot téléphone tamit nga dem ci moom. ñëpp ñu ñëpp ñu am idée yi bu responsable yëpp aussi ñoo doxalee nii. aussi bon vraiment dañ lay remercier depuis que euh, yàlla teg la fi la teg aussi. yaa doxal li nga war a doxal man xam naa ci lu bëri donc personnellement nag man li ma léegi ak yow c'est autre chose c'est c'est plus fort la politique. Mm-hmm. waaw parce que sama rakk nga. Mm-hmm. Euh, lu bëri boole ñu. Mm-hmm. donc man lépp loo nekk dama cee nekk. xamamul la boo nekkoon boo nekkoon caaxaan aussi du ma ci nekk. mais kenn xamamul la caaxaan. li nga xam mooy fulla ak fayda. ak gëm sa bopp ak bëgg kër particulièrement bëgg Diourbel en général hmm. donc ci loolu ngay dox donc mu lay encouragé hmm. yoon nga nekk moom mu ko wàcc yàlla jàppale la hmm. yàlla defal sutura c'est sûr que moom wax naa la ko un jour tu iras loin di nga dem sori sori bu neex yàlla parce que yaa ngi ci daal euh, sa xam-xam may na la ko macha allah sa yar may na la sa tege may na la sa engagement may na la ko aussi soo nekkoon nga nga ne yàlla suturaal na ma naa dem toog fële ko mais defuloo ko mais yaa ngi sonn pour Kër Cheikh. Mm-hmm. yaa ngi sonn pour Diourbel. Mm-hmm. yaa ngi sonn doomu aadama yi. Mm-hmm. donc euh, ñu lay sant di la gërëm ci loolu. c' est pas facile nag c' pas évident comme li ñuy wax sànq quand on n' attend pas Modou Fall euh, directeur de l' avec problème emploi ni mel au Sénégal. tout le monde nii que ni Pape Modou mën na jël wutal népp liggéey. donc c' pas comme ça euh, xam nga liggéeyu mag nag surtout mentalité Diourbel waa ni ñuy xalaatee yaakaar nañ rek moom ku ñëw ën sa doom rek Pape Modou Fall da ko mën a jël Pape Modou Fall loolu même Dame Diop son ministre mënu loolu sax même le président Macky Sall mënu loolu sax donc ça pour nit ñi comprendre ko mais comme li ñuy wax xale mu dajul suuf quoi ñëpp mën ñu xam mais nga ci def sa conscience sa diggante yàlla nga def li nga war a def jaar fi nga war a jaar loolu yaa ngi ci donc c'est c'est pas facile mais il faudra Mm. expliquer tuuti ah. mm. mettre euh, un peu les points sur les i pour nit ñi mën a comprendre ah. surtout loolu ko problème de communication la surtout daal mm. faut communiquer avec les gens quoi waxtaan ñoom et tout ça mooy ci nga nekk nii ñu la ciy encouragé pour c'est quelque chose de bien daal gars yi ànd ak yow yëpp vraiment aussi c'est des gens yoo xam ne c'est des gens très engagés ñu ci démb lañ parce que aussi bu ànd yow ngay wax euh, ànd sa nit tànnal ni ñi nga xam ñi nga xam ne ba dara dul dara ñoom nga gis. Mhm. ñëpp moi je les connais tous. yi mhm. dara dul dara ñoom nga àndaloon. Mhm. Euh, am ñoo xam ne fekk nañ leen woo leen jox leen ay proposition mais teewul dañoo constant ci lañ nekk. gëm seen bopp gëm la aussi. donc ànd ak yow ci ngor. ay nit ñoo xam ne vraiment ay nit ñi muy ma naw lañ. war a félicité lañ. xam naa engagement rek la ñu ànd ak yow ci dëgg quoi. comme ni ko parti waxee dëgg moo wóor. Hmm. leen encouragé. Hmm. donc te aussi on ne peut pas prendre une personne boo xam ni ku mel ni man jàngoo amoo diplôme ñu yow di la teg yenn postes yi pas possible kenn ku ne da nga da nga nangoo da nga nangoo reconnaître ses xam ni fii nga mën a yem. te la nga mën a yem nag du ñàkk aussi ci liñ la mën a dugal s'il y a possibilité aussi. Hmm. mais il faut pas croire lépp mën a nekk. aussi. loolu euh, sa liggéey la mais surtout liggéey ñi nekk si ginnaaw la ñooy mën def loolu parce que à chaque fois. ñoom ñooy ñooy gën a jigéen ñooy gën a jigéen ñi quoi. donc c' est pas facile. ñaan yàlla li nga bëgg. jóge ci gox dem ci goxam yooyu yëpp nit ñi vraiment doon nañ ma jàppale. kenn ku nekk nag ak niveau bi nga doon jàppale. waaw kii di leen teg ci yoon di leen conseil ba pare fu waxtaan amee ngeen toog fa nangoo waxtaan. pour gën a yaatal nit ñi gën a mën a xam lii seen diine gën a mën a xam fi ñu bokk nag ban taxawaay leen fa man a am loolu aussi dafa am solo ci société parce que société dafa complexe façon nit ku nekk fa nekk façon catégorie bu nekk fa nekk kenn ku nekk ak li ci sa pàcc kenn ku nekk li sa waar ak ci li mu war a liggéey te yéen yaakaar naa ni nekk ci koñ bi ñëpp teg nañ seen bët waaw ñëpp ñëpp teg nañ seen bët loolu aussi vraiment ñu leen ñaan yàlla yàlla may leen gudd fan ak wér te yéen aussi li ngeen bëgg ci liggéeyal ko seen maam yàlla defal leen ko amiin parce que aussi àdduna moom jaam bi moom dara yomb ko voilà loolu moo nekkoon kàddu yi loolu jégalu bu baax daanaka matu ko woon ndax ndax matu ko woon mooy ñun ak yéen benn la waaw li naan toogoon it wax yàlla daanaka umpale wu maanaam maanaam gisante wu waaye umpalante wu. waaw umpale wu ndax daanaka luy xew man maa ngi koy yaa ngi koy biraan bi labali ko mhm. waaw dañuy wax ne jaasoo lu ñëw ñax des na ko daas mhm. kon nag loolu lañ a ñaax rek gën a gën a taxawaat bu baax a a baax mhm. xam nañ ne a a a ngi si ngeen mën waaye a a a baax waaw mu a baax ndax tey a xam dëgg yàlla ah du seen teewaay moo tax. Hmm. ñu koy wax. Hmm. waaye wax dëgg yàlla li may wax toujours rek. waaw suñu laaj di ko wax. maanaam ah, képp ko xamante ni waaw góor moom. Hmm. Ah, néew na tuut lool. waaye nag de su ko def wax ko ku la deful dara. ndax ah, wax dëgg yàlla ñun dama koy wax toujours suñu daara ji. moom la ñuy moom la ñuy tiitaroo. ndax moom la ñuy suñu dox si loxoom. kon nag duñ ko xeeb. képp koo xam ne yaa ngi siy gunga rek. ah suba ak ngoon loo bëgg ña nga sa ànd ak dañ ko sosee ba léegi. ah gis nañ ne seen loxo jugu sa. ak lépp luñ mën di bëgg rek.